Thank you. dal leen jàmm ci leeral tv leeral point net tey jii ñu ngi daal di xëy ci xëtëb gu nga xamante ne moom mooy huitième édition du forum bi nga xamante ne daanaka ñu ngi ko doon amal fii ci ndakaaru jàpp le 24 di jeex ñu daal di xam ne rek daal ay décision yu gën a am solo ca loola jël nañ ko naka noona ñuy daal di xam ne rek daal ñetti décision mën nañ ko cee wax wennis mi muy sécurité muy rek daal wàllu kaaraange ak la paix muy jàmm fii ci réew mi ak ci àdduna wërngal këpp rawatina Afrique gi nga xamante ne daanaka seq nañ ko gannaaw loola itamit njiitu réew mi Macky Sall wax na ci li nga xamante ne rek daal moom mooy mbirum coup d'état yi nga xamante ne amul benn njeexintal rek daal ci Afrique amul dara itamit lu mu mën a delloo Afrique lu dul ginnaaw dong kanoona muy daal di addu yi tamit ci li nga xamante ne moom mooy abbum xaalis gu metti gi nga xamante ne Afrique fii yaamal na ko rek daal ci yenn ONG yi wala sax daal yenn dëkk européen yi ndax loolu nee na dafa war a dakk guddul loolu rek daal ay coono itamit moo leen ci daal di fekk naka noona itamit ay lépp yoo xamante ne amul app ba noppi itamit amul benn njeexintal ci Afrique bi lee war nañ koo dakkal beneen bi mooy mbirum réseaux sociaux yi ni mel ndax ñor na ko lool wax na ko waxaat ko ci bépp ndaje naka noona ñuy daal di xamle mbirum réseaux sociaux yi kat daal njiitu réew mi lu ko ñor la ba tax na nee na dina ci jël ay matuwaay saagakat yeeg yeneen yi dinañ leen di daal di traqué kuñ ci daal di jàpp daal bu moytuwul sa ndong dana daal di tàng bu baax a baax naka noonu ñuy daal di àddu itamit ci waa Pastef ñoom nee nañ ñi nga xamante bokk yaakaar ñoo dàq ndax ñoom itamit bu fekkee ni mel am na kon nag ñoom it dañuy daal di bank seen loxo dong mu di daal di seetaan lu ci mel ni Californie Fatoumata Fouta Tampi ak ni mel ñu gën a bari ci réseaux sociaux yi la ñuy daal di nekk waaye ñoom ci seen bopp am na itamit fu ñu daal di jàpp fu wóorandi ba tax na nee nañ sociaux yi nga xamante ne njiitu réew mi daal dina ci àddu kon nag na daal di commencé ci booram ba noppi daal di ñëw ci seen boor li nga xamante ne moom mooy loola ndaje woowu itamit ñu daal di xamle li nga xamante ne mooy ay décisions yu am solo ñu ci daal di xam nañ ka ba tax na rek nga ca loola ñu daal di xam ne rek daal Afrique ngir kaaraange gi ak jàmm gi dellu ci réew mi foog daal ñëpp itamit xoolaat seen bopp ba tax na daal président de la république en tant que itamit le président de l'union africaine wax na itamit ci ay kàddu yooya àdduna ci li nga xamante kaaraange réew mi ak itamit lan moo koy doxal ci ay décisions yi nga xamante ne jël nañ ko ci ndaje woowa ba tey rek daal ci xët bu ci leexal point ñuy daal di àddu ci mbirum Dubaay minimal nga xamante ne dafa daal di rek daal bañal jox yenn visa yenn dëkk yi nga xamante ne lim na ko ci lu toll ci vingt pays africains naka noona ñuy daal di xamle lim ci jublu xamuñu ka liñ daal di xamle rek daal muy le Sénégal mu nekk rek daal ci lot des vingt pays yi nga xamante ne dañ leen daal di interdit euh, trente jours ci visa buñ ko daal di demandé lépp dañ koy daal di rejeté lu tax loola euh, Sénégal mu daal di ci bokk mu nekk rek daal ay émirats autorité des émirats arabes mi nga xamante ne daanaka jël nañ décision gi ni mel ba tax na ñoom nee nañ dañoo annoncé rek daal interdiction de visa ñi nga xamante ne dañuy imposer ni muy vingt pays africains yi nga xamante ne dañuy daal di dugg Dubaï benn ñu daal di commencé ci Ghana Sierra Leone Soudan le Cameroun, le Nigeria, le Libéria, Burundi, République de Guinée, Gambie, Togo ak République démocratique du Congo, le Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Congo, Rwanda, Burkina Faso, Guinée-Bissau, le Comoro ak République dominicaine. ñu nekk 20 pays yi nga xamante ne fu mu nii bu ñu daal di demander képp ku dëkk ci pays yi ku daal di laaj visa Dubaï dañ lay daal di bañal te loolu. à partir de 18 octobre gii maanaam loolu def nañ ko ba noppi mu nekk rek ak décision gi nga xamante ne jël nañ ko te joxuñu benn explication gu waral loola naka noona dañoo daal di wax rek daal décision gi jël nañ ko te amul benn excuse wala sax daal justification gu nga xamante ne mën naa firndeel lu tax rek daal 20 pays yi bu ñu daal di laajee li nga xamante ne moom mooy visa Dubaï duñ leen ko daal di mayandi naka noona information bi GFM moo ko daal di joxe ñu daal di xamle rek daal ni ni moo daal di xew ci ambassade yi ni tey daal ci xëtëb gu dekk ci leeral point net ñuy daal di àddu ci assemblée nationale gi nga xamante député yi dañ leen daal di privé ci seeni oto naka noona ñu daal di wax ne député simple yi duñ daal di am ab loto lu tax loola ñu daal di xam ne réforme bi nga xamante ne énervé na opposition bi bu baax a baax gannaaw naka demb rek daal ministère des finances du budget Moustapha Ba gannaaw gi mu daal di demee naka démb rek daal ca pentum ndaw réew mi ngir rek vote budget gi nga xamante ne daanaka ci examen du projet de loi finance 2023 gi ni mel ñenn ñi ne nañ koy voté ñenn

koppar ngir rek daal ñu bañ a am oto gi ni mel waaye daal di xam l'opposition bi ci la daar di mer ba futtu Birane Souleye Diop muy président du groupement parlementaire bu Yewwi Askan Wi Ahmed Aïdara Abbas Fall ak ñeneen ñi nga xamante ne rek daal dañoo wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay député simple dañ leen war a jox auto de fonction loolu kat daal seen droit le plus absolu la président groupe parlementaire muy Oumar Youm di président groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar li mu daal di xamle moom ak Cheikh Seck ñu ne li nga xamante ne moom mooy réforme bi ñi ko daal di laaj du leneen lu dul l'opposition gi ni ñoom ñii ñoo ko daal di laaj kon nag ñoom dañ koy daal di voté ba mu neex ba tax na la question bii nga xamante ne daanaka wax nañ ko te ñenn ñi tamit ànd nañ ca ñeneen ñi ànduñ ca danañ ko daal direk daal jox bureau de l'Assemblée nationale ñu xoolandi résultat yi fu ñuy toll ba tey daal ci xëtëb gu dégg ci leeral point ñuy daal di addu xam ne itamit mbiru góor jigéen mu ngi daal di bëri fii ci mim réew naka mbuur itamit la daal di xewee ab homosexuel moo daal di piéger ab onclam rek muy am tontoowam le ci di chef de village yi tamit di ko envoyé ay image ak i vidéo yi nga xamante ne daanaka dafa ñaaw lool ci làmmiñ muy rek daal ay vidéo pornographique gannaaw loola ñuy daal di ne ki nga xamante ne mu ngi woy ci turu dekan moom mi ci boppam moom lañ daal di defeere nag altine ji ñu dal ca parquet bu Mbuur gannaaw rek daal ab outrage de mœurs waaye tamit di collecter ay diffusion de données nga xamante ne mën nañ ko à caractère pornographique muy li nga xamante ne daanaka dañ ko ciy tëj ràpp bu ñu sukkandikoo ci l'observateur gi jaal daal di jox xibaar gi lee ñuy daal di xamle image yi nga xamante ne rek daal moom lay daal di woon envoyé ki nga xamante ne moom mooy tontoom gile ndax nee na yoo yaay daf ko daal di nopp ndax moom mi góor jigéen la gannaaw giñ ko daal di jàppee loolu la daal di xamle gannaaw gi mu daal di xamee ne oncle am gi ni mel muy tontoom gi intéressé wul ci li muy wax ndax wuyu ko ci loolu rek daal la jàll di jóge foofa demaat itamit ci beneen vendeur muy rek daal ki nga xamante ne moom mooy jaay ay sow rek daal commencé ko itamit di envoyé yenn vocal jigéen ngir rekk daal changé baatam ngir kooku itamit tombe ci charmam naka noona kooku itamit foo ne sax daal ab benn ndaw si bu nekk ci dëkk bala ba noppi rek porter plainte ganaaw gi mu daal di porter plainte loola gendarmerie def liggéeyam ba noppi itamit daal di xam ne vidéo yile ak image wala sax audio yi ci téléphone Dekkan mii la daal di jóge carak daal lañ daal di defee l'enquête wa daal di ko téye waaye naka noona muy daal di xamle moom giñ ko daal ba noppi nee na moom xam na ni naam reconnaître na li nga xamante ne moom mooy vidéo yi nga xamante ne moom la daal di envoyé wal sax audio ya ndax moom mi ab góor jigéen la muy lool la daal di xamle l'enquêteur gannaaw loola ki nga xamante ne moom mooy tonton bi ko daal di héberger ci kër ga sax gannaaw bi mu déggee arrêté nañ ko ci la génneewaat message ne moom mii moo njëkk a doon premier victime ki nga xamante ne moom mooy jarbaatam gile muy lu doy waar la woon lu xew ca mbuur